des mesures de prévention collective et individuelle je vous remercie asalaamaaleykum askan wi ñu ngi leen di ñëw di jottali lim bi nga xamante ne am nañ ko ci mbas mi ñuy wax covid 19 fii ci Sénégal ci altine tey fukki fan ak benn ci mois de mai 2020 jot nañu résultat examen virologique yii nii ci juróom-ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar test yi nga xamante ne def nañ ko téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar si nañu am doomu jàngoro ji ci yooyu téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent mooy li ngay xamante moom lañuy wax contact yi nga xamante ne moom la saytu di ko topp ci bësu bërëbu liggéeyukaay yi juróom-ñett ci ñoom moom la wax cas communautaire yi nga xam ne mooy nekk di walal mbas mi wal bu métti bi ñi nga xamante ne ñu ngi ko am ci fan yi yooyu nag ñu ngi leen di fekk ci diwaan yi Liberté trois am na benn Mbao am na benn Pikine am na benn Tambacounda am na ñett Touba am na ñaar juróom benn fukk ak juróom yi nit yi nga xamante ne dañ leen a entré woon ci l'hôpital yi mooy ci bërëbu liggéeyukaay yi bañ leen testé gis nañ ne seen yaram amatul doomu jàngoro ji wër nañu waaye juróom-ñett ci ñoom ci malaat yi dañu leen di wax cas grave mooy yi nga xam te ñu ngi ci bërëbu sawetaas yi mooy service de réanimation nekk nañ ci hôpital Fann ñett nga fa tëdd ci hôpital régional bu Ziguinchor benn nga fa tëdd ci hôpital principal ñeent ñu ngi fa tëdd ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi tëdd ci la hôpital yi ñu ngi am tan bi mbas mi duggee ci Sénégal ba bés mi tey ñu rappelé waat ko fàttali ne depuis le 2 mars la 2020 ñu ngi tollu si junni ak juróom ñetti téeméer ak juróom ñetti fukk ak juróom benn cas yi nga xamante ne ñoom positif nañu gis nañ ci ñoom doomu jàngoro ji ci yooyu ñu ngi am juróom ñaar téeméer ak fukk ak juróom ñi nga xamante ne wër nañu gisatuñ ci ñoom doomu jàngoro ji fukk ak juróom-ñeent ci ñoom làkku nañu génn nañu àddina am na benn boo xamante ne dañ koy fàttali toujours fii lañ ko entré woon waaye jotoon naa dellu ca dëkk ba mu jóge woon wax nañu faatu nañu faatu na ci ñi nga xamante tey ñoo des ci lalu hôpital yi tëdd fa ñu leen di faj ñu ngi tollu ci junni ak euh, téeméer ak juróom fukk ak benn junni ak téeméer ak juróom fukk ak benn ñoo tëdd fi mu nekk ci lalu hôpital ñu leen di faj ministère de la santé et l'action sociale mu ngi dooleeti di ñaax askan bi loolu nag dinaa ci taxaw tey wax ci seetlu gis nañu ne